na doon ab jàngat ci nguurug Sénégal ngir mu indi ab coppite ci anam ba nga xamante ne moom lay doxalee politique koom-koom gi bu ñu sukkandikoo ci professeur Abou Wele ak kii di Moustapha Tall di ab opérateur économique. bu dee secteur privé national ah dama ne na dellu ginnaaw te seet parce que am na yoo xam ne dafa rafetul soo ñëwee ñu fal la président depuis douze ans les gens dégg nga naan la boo fàtte nga sa secteur privé jox leen say commande nga jël ko di ko dox ay doxandéem soo demee bay laajte ñooñu ngay laaj dama ne secteur privé sax gàcce ngaalaama c'est des sénégalais parce que génne nañ sax dara di ko joxe mais bu ñuy wax nañu wax Auchan nañu wax euh, euh, nu mu tudd euh, ñi defar terre nañu wax keneen ak keneen ak keneen loolu lañ ñu war a wax. ana ñu ñu doon jox an les sociétés marocaines yi ñuy suñu yëf jox ko ko les sociétés turques nañu wax ak ñoom. ana xaalis bi non ñooñu li ñuy gagné dañoo am fulla dañoo am fayda dañu koy rapatrier mu dellu seen dëkk. Ah, ñoo xam ne il font des ensemble des milliers de milliards di ko yóbbu 70 pour cent du pro euh, euh, du produit intérieur brut Sénégal ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo koy liggéey. ay wéet nañu cundum ñun ñooy tëju dégg nga di sonn di rafistole di laal fi di daaj fu nekk ñu dugg dégg nga pour mën a survivre. c'est normal que mu xeeb ko ndax gouvernement bi mu ngi doon séntu ci ñooñu entreprise yooyu nga xam ne ñoo dajaloo. nekk de grosses entreprises am ay chiffre d'affaires yi milliards di gagné ay milliards ci réew mi ñu leen di jox marché bu ne ñooñu bu problème bu amee mel ni amee waroon nañoo génnee lu ëpp loolu fuuf parce que ñoom li fi nekk lu fa baax ñoom lañ koy jox lu fi baax ci entre ci ci ci projet ci ci ci ci lu mu mënti doon ñoom lañ koy jox ngir xeex jàngoro bi ñu duppee coronavirus njiital réew mi Macky Sall mer ba futt la def jëmale ko entreprise privée yi nga xamante ni sax leen jot a génnee ci koppar bëriwut leen mel sax tax na ba économiste yi ak opérateur économique yi daal di yëkkati seeni kàddu bu ñu jógee ci lii moom dina xam lan mooy secteur privé ak lu secteur privé di jëriñ ci dëkk dama ñoom dañoo tardé ñu ngi ci eeru ay mooñ ay globalisation globalisation jeex na àddina bi yëpp xam nañ ko 2025 globalisation dootoo ko dégg régionalisation ngay dégg ku ci nekk par rapport ate tes sociologique sociologiques ngay dund avec une monnaie souveraine dégg nga mën a yor sa bopp suñu économie moo mësut a baax waaw il est temps que ñu xam suñu bopp bu ñu génnee lii xam ne ñun ay sénégalais lañu dañoo war a tëju suñu biir on ba travailler avec le monde. te li ñuy gagné par at c'est milliards am na ci benn boo xam ni moom chaque anne mu c'est mu gagné plus de quatre cent milliards de bénéfices waxuma ñeneen dañu war di bàyyi xel ni ki fi dëkk bokkul ku fi dëkkul ki fi dëkk bu méttee moom la bu guerre amee ñun ñooy dem guerre armée armée yi ñooy dem suñuy doom ak suñu ñi réservistes yi su fekkee ni guerre économique la ñun ñooy dem bu dee guerre sanitaire ñooy làmb suñu poos kon kay nañ ñu jox suñu suñu gëdd nañ jox suñu àq ci jamono ba nga xamante ni ñi ngi dundu lii di crise économique maanaam koom-koom gi dafa daal di tagga tembe war na yomb lool ci entreprise multinationale yi ñi daal di génne ab koppax gu bëri ngir jàppale gouvernement bu Sénégal professeur Abou Wele ak kii di Moustapha Tall ngi sàkku entreprise nationale yi étrangères yi bilatéraux ak multilatéraux ñi daal di indi seen dimbal ci force Covid 19 mi ngi mi ngi noonu maamu mooy élément bi nga xamante ni ñoom suñu opérateur économique yi ak économiste yi euh, la ñu jël teg ko ci li nga xamante ni mooy entreprise yi laata ñuy damay daal di dalal ñaar ñu ñu rejoindre sur le plateau di euh, Salma Ibrahima fal ak Aliou Sow guneeg euh, mariste gi naa la ma yëg ni yëngal nga plateau bi ba mu yëngu nii <laughs> déconcentré nii <laughs> waaw yii ngay def ak yeneen tayooro kay <laughs> ba yaa ngi si jàmm bu baax d' accord kon si kanam dinañ ñëw ci ci ci people yu tàng yi. d' accord incha allah mi ngi noonu ma daal di euh, nuyoo Sow Poulo surtout surtout Awa Papa Awa nuyu naa la. maa ngi lay fay Kapulo. Euh, yaa ngi si jàmm ah. Guèye Massiré. maa ngi nii toog ah, euh, Issa Dieye. waaw ba ba jàmm nga. sant bu wér na ngeen def ak coono. alhamdulilah sant bu ah, wér. ça va ça se passe bien. waaw alhamdulilah. c'est cool je suis content d'être là. ñun tamit kontaan nañu gis nañ gis nañ loolu waaye léegi di nga ah, nekkaat en forme léegi parce que xam naa ne loolu ngay lii léegi nga gis loola naxari daal di tàkk léegi nii. ay ca euh, maamu. Euh, d'accord fay nañ la bu baax soppul waaw kay léegi maamu dañuy daal di wëyal entreprise étrangère yi c'est-à-dire bi même bi ngay bi ngay tëj yaa ngi naan moom Cheikh euh, Cheikh Tidiane Tall non. Cheikh Tidiane Tall man man lu tax sama xel nekk ci Cheikh Tidiane Tall ay waay Cheikh Tidiane mu may toppee Moustapha Tall Moustapha Tall Moustapha Tall ci biir ci ci ci biir ci biir reportage mi ngi wax que ni mu ngi ñi ngi sàkku ci entreprise étrangère ñu dugal seen loxo ci force Covid 19 bi man je pense que sax loolu suñu defet la ñun ñu demee bay bay sàkku dafa mel nañ leen di ñaan te pour man ñu leen ñaan loolu force la war a parce que dañoo ñëw fii ñu yaatal leen jël suñuy lépp bàyyi leen kook ñoom ñu ñëw ba yegg ci ay situation ñu toog di ñu seetaan. Mhm, tout à fait loolu rek damay rejoindre euh, Fatou Ka. Mhm. Euh, di nuyuwaale kii di Salma ak euh, Aliou Sow. danaa mhm. bu ñu rejoindre ci plateau bi. tey nag li ñuy fas yéene waxtaanee rek mooy force Covid 19 moo ñu gis ne rek entreprise étrangère yi nag li ñuy génne comme. Euh, combat bi dafa néew lool mun nañ ne sax sarax la mhm. muy amoon wala sarax mhm. mu doon la nga xamante nag ñëpp du koy jooytu ndaxte gisoon nañu fan yi ñu génn kii di mhm. njiital réew mi Macky Sall meroon na parce que bu mu njëkk ji dafa ne rek entreprise euh, privé yi mhm. euh, jotu wax exactement ñan la mais après bi kenn ku nekk jóg di wax après si la Macky Sall daal di leeral mbir mi nee ne waxul mhm. euh, ñi fi nekk mooy entreprise euh, nationale privée mais yu bitim réew lay wax parce mhm. que dafa jàppoon ne ñooñee am nañ koppar bu ta koppar bu bëri ba nga xamante ne mun ci combat bi ñu gis ne moment ba nga xamante ne entreprise nationale yi di yuuxu wàllu ñëpp di jàpp ci combat bi di ne Macky Sall na jiital entreprise yi fi nekk ñu gis ne Macky Sall di jox presque marché yëpp ñii di entreprise euh, étrangères yi mu doon la nga xamante ni ñu bëri daal di ko ñaawlu rawatina économistes yi ak euh, activistes yi mais taxutu Macky Sall deltu ginnaaw ñi gis ni ak lii di force euh, Covid 19 bi si lañ xam ne ndekki patriotisme économique am na ndaxte nit fa nga juddoo fa nga yaroo fa nga màggee yow lu xew rek foofu di nga génnee sa participation ak doole te loo génnee xeeb ko donte sax yaa ngi jànkonteel ay jafe-jafe ndaxte tey guerre économique si lañ nekk jamono ci euh, entreprise yi fi nekk wone nañ ko muy entreprise euh, privée nationale bi ñu ngi ci sukuraat mais taxut kenn ku nekk jot na génnee la nga xamante ne moom la am ngir ko ci force Covid 19 ndaxte bu tey ñu ne ah Macky Sall de amuñu amuñu wala sax président Macky Sall de amuñu la nga xamante ne moom lañ mun a génnee jamono ji ndaxte am nañ ay problème fay suñuy employé am nañ problème fay fay ay seen fiscalité tout ça mais taxut ñu participer euh, ñu gis ne am na ci ay entreprise nationales yi fi nekk sax euh, jot nañ génnee kenn ku nekk euh, benn milliard un milliard de francs CFA te ñëpp xam nañu dañuy jànkonteel ay jafe-jafe bu njëlee lii di entreprise étrangère yi Eiffage dañuy tudd duñu tudd tuur yëpp mais dana am tuur ya nga xamante ne faw ñu laal leen ñu xam ne eh, li ñuy wax looloo am ndaxte kii di Eiffage ñëpp xam nañ ni eh, eh, kii la géant des BTP la waaye tamit moom moo nekk concessionnaire autoroute Dakar AIBD moom nag mu jot a génne 200 millions de francs CFA te ñëpp xam nañ ni ñu mun ñu yem ak entreprise nationale yi fi nekk mu doon la nga xamante ne ñëpp di ko ñaawlu waaye tamit ñu gis ne rek am na benn benn société ba nga xamante ne aussi muy euh, société multinationale canadienne mu am euh, euh, kii permis d'exploitation kii or maanaam urus foofee ca kii Sabodola Goldu Sabodola moom ñi nga xamante ne dañ ne ci ay estimation lu muy gagné par at comme bénéfice nag ñu ngi koy estimer ci 372 milliards de francs CFA xam nga moom nag mu daal di génne rek 50 million 50 millions as tuuti na ñaata milliards lay gagné ñaata milliards te ñëpp xam nañ te ñëpp xam nañ ni waaw. fi ma bëgg a inter intervenir rek rek mooy lii ça doit servir de leçon au président Sall parce que nit bay ci say wewu tànk entreprise yooyu de mais bu fekkoon ni ñaar dërëm lañ génnee sax dimbalee ko ko dimbal la ils sont pas obligés raison pour laquelle mu war a jël entreprise yi nga xamante ne ñoo nekk fii dooleel leen gis nañ marché yi bu génnee ñi nga xamante ne ñoo nekk à l'extérieur lay jël dooleel leen parfois aussi entreprise yu nekk fii la ci Sénégal mu jël ko jaay ko étranger yi comme le cas de entreprise boobu ñu ne mooy ni defar Nivaquine jaay ko ay tunisien xam nga ñooñu bu problème amee surtout loo xamante ni mondial la dañuy delluwaat seen dëkk parce que bay ci say réewu tànk doo dimbali dëkk keneen même bu fekkente ni yow fa nga nekk di bàyyi sa dëkk d'origine donc loolu ça doit servir de leçon ah, dëgg dinañ fa taxaw incha allah bu baax a baax Euh, gis nga comme li ma doon wax rek ak li di Sabadola ñëpp xam nañ ni Kédougou ñi fa nekk ñu fa yeewoo ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe donte sax zone la ba nga xamante ni am na fa urus mais tey Kédougou mënoo ko xool nga ne benn région la ba nga xamante ne dafa développé euh, te ñu gis ne marché yëpp état di ko jox euh, entreprise étrangère yi maanaam puissance étrangère yi waaye tamit am na benn entreprise alimentaire ñëpp ràññeel ko lool fii ci mim réew moom aussi di jàng di euh, gagné ay bénéfices ay milliards et des milliards par at euh, ñu ràññeekoo muy defar eau minérale xam nga di defar lii di jus de fruits ak autre ak li nga xamante ne moom mooy néew mais moom aussi 200 millions de francs CFA kese kese la jot a génnee mooy dafa mel ni rek comme si dañuy ne euh, gouvernement du Sénégal ni ngi nii li lañ leen mën a jox. xam nga kon mu doon la nga xamante ne ñëpp di ko naqarlu ndaxte tey euh, guerre économique la ñuy wax tey ba gannaaw kii di euh, euh, François Emmanuel Macron autant pour ma président kii bi France bi bi muy euh, ne na ñëpp participer ci combat guerre économique foofu ca réew ma gis nañ ni euh, entreprise société française yëpp kenn ku nekk jot nañ génne seen bos ngir mun a jàppale seen chef de l'État ñun ñi nga xamante ne Macky Sall kii li muy demandé ni milliards de francs CFA la pour ñu bokk ci combat bi kon ñooñu itam mën nañ taxaw jàppale ñu baax a baax ci mbir ñi mais dañoo wane ni ñoom euh, fii li leen fi intéressé bëriwul am na benn waaw am na benn hôtel mais même si nii lii ñoom war nañ xam ne tey état dafa privilégié da leen privilégié mhm. maanaam moment ba nga xamante ne ñu fi nekk di jànkonteel ay jafe-jafe mhm. entreprise Macky Sall wala sax moom ak ay gouvernement daal di jox marché bi jox ko ñeer mhm. xam nga tey concurrence mun na am su fekkee ne xam nga ne tey li ngay joxe yow sa ñi fi nekk mun nañ def liggéey boobu nañ leen jox opportunité accompagner leen appuyer leen jox leen mbir mi mais Macky Sall wala sax moom ak ay gouvernement dañuy préféré jox ko ni ñeneen ñi mu doon la nga xamante ne dafa doy wax trop kon ñu gis ne mbir mi daal dafa bëri ay complication am na benn hôtel aussi bi fi nekk tey gouvernement bi da leen dafa jiital boobule hôtel ñooñu tamit di gagné ay milliards par at ñu daal di génnee cinq millions rek am nga mu doon la nga xamante ne dafa métti mu am aussi benn entreprise ba nga xamante ne ba <coughs> mu aussi la nga xamante ne moom la jot a def dafa doy wax ndaxte benn entreprise kii la société chinoise la ñëpp xam nañ ne ci autoroute kii euh, première autoroute ya nga xamante ne moom lañ jot a def fii ci régime kii libéral bi moom aussi moom moo ko daan def moom 2 millions la jot a génne 2 millions loolu sax dañoo ne est-ce que sax Macky Sall du delloo xaalis boobu parce que 2 millions ñëpp xam nañ ne tey bu ñu nee benn entreprise société chinoise. waaw moom 2 millions la joxe 2 millions kese la joxe. waaw waaw waaw loolu la quoi. xam nañ tur bi mais dinañ ko wax incha allah après. non wax nga ko ba <laughs> ñun bëggoon nañ ko xam bëggoon nañ xam kooku loolu ban entre ban société la ban entreprise la. Hmm? léegi nag ñu gis ne ah, entreprise waaw waaw ah, ah. ñu gis ne am na tey tur yoo xamante dañ koy préférer off am na tey tur nag tey nañ ko wax. am nga am na yenn tur yaa nga xamante nañ ko wax. li man keroog sax bi ma doon dagg ci sama élément bi nga xam te moom moo ci am na say tour dama ne monto bi dagg ko mm-hmm. parce que duñ ko kii mm-hmm. incompar mm-hmm. noonu ko waxtaanee incha allah am na y a des nañ ko wax kenn ku nekk bu suivre moom dana comprendre li ñuy wax kon mu doon la nga xamante ne ñëpp di koy joytu muy deux millions ba nga xamante ne moom lañ dafa génnee sax am na ñu ne sax euh, gouvernement bi daf ko war a delloo ndax te li sawax la euh, tey gu ne fii euh, groupe Walfadjri na kenn ku nekk cotiser j'espère que ñoom dinañ kenn ku nekk mun na génne la nga xamante ne mun nañ am 2 millions de francs CFA versé ko ci Covid 19 mm. waxatuma ñoom ña nga xamante ne dañ leen jiital ci ci réew mi mm. kon il faut que Macky Sall na change politique am ñëpp da jàpp nañ ne peut-être bi ñu xasee bi ñu génnee ci euh, euh, ci coronavirus bi incha allah. Mhm. dina am leçon ba nga xamante dañ ko tiré bu baax a baax a baax ci li xew jamono ji mhm. parce que li dana tax ñu xëpp ko i bët mhm. lii moom bu xasee bu jàll moom dañoo ne yàlla bu la tàcculee boo feccul dootu feccati mukk kon fii jàpp nañ ne suñu autorités yi war nañ xam ne nag jot na ñu jàppale suñu entreprise yi fi nekk pousse leen bu baax a baax ñi xam ne réew mi ñun ñoo ko moom mm-hmm. kon lu avant ngay mm-hmm. am na li ngeen ci bëgg a yokk ñu yokk ci mm-hmm. après ñu continuer suñu autorité yi mën naa la expliquer lan moo tax duñ ko def li tax duñ ko def mooy euh, entreprise étrangère yooyu ñuy jox marché yi ba pare leen defal yenn facilitation yi c'est parce que entreprise yooyu dañ leen di defal ay retour de commission yoo xam ne ñoom bëgguñu ñu xam ko boo gisee les hommes politiques di enrichir di am alal nga gis homme politique boo xam ne mun na toog fukki at nekk dans l'opposition di dund hyper confortablement c'est parce que boobu mu amee ay ndombal tànk dafa am ay njuuj njaaj yoo xam ne daf ko defoon maanaam dafa am ñoo xam ne ay entreprises yoo xam ne dafa seqoon ak ñoom am kaddu signature maanaam bu signé benn affaire mun na joxe ay possibilité pour que ces entreprises là obtiennent des marchés mais surtout di créer sax ay entreprises wala di dugal seen i seen i seen i seen i seen ndax ñoom dañ leen di ay retour de commission dans les dans les dans les dans les banques occidentales mm-hmm. c'est exactement comme ça que ça se passe donc loolu mënu fee jeex pour mu jeex il faut que mu am de la transparence dans la dans dans le dans le dans la répartition des marchés marché ni leen di distribuer il faudrait loolu muy set cadre bi leer mu am énormément de transparence mu am mu am lu leer nañ nga xam ne Sénégal yëpp dañu si teg seen bët mhm. nga xam ne yow bu fekkee ne yow Fatou Ka simple citoyen ou Aliou Sow simple citoyen dañu jóg pour euh, euh, xam comment fonctionne telle entreprise wala comment fonctionne tel ministère ci rapport am yi ak marché yi eh bu boobaa boo cliquer yow fi nga toog nii sa sa sa téléphone boobu nga yor da nga maam di nga xam lépp lu fa xew mhm. marché bi pourquoi Cheikh Diane Gomis wala pourquoi c'est Cheikh euh, Salma Ibrahima wala Fatou Ka lan moo tax ñu gagné ko parce que ils sont ils ont été beaucoup moins dix ans ou mieux dix ans j'allais dire en ce moment là effectivement dinañ xam ni Fatou Ka mii moom moo gagné marché parce que lii ak lii moo tax mais am na yoo xam ne duñ ko def dama lay jox marché cinquante milliards je me retrouve avec deux milliards pendant cinq ans si je le fais avec une dizaine de grandes entreprises man bu ma nekkatul ministre eh bien je suis milliardaire. et je peux rester le reste de ma vie toog dootuma liggéeyati du ma bu ma neexee ma xaar éventuellement su ma bëggaat duggaatee ci beneen beneen gouvernement ma dugg fa wala bu ma bëggee def transhumance ma def ko wala mun naa toog croiser les bras di continuer di nekk di opposant farouche. Mm-hmm. c' comme ça que ça se passe. Mm-hmm. c' est parce que lii pour mu jeex fi pour mu jeex fi du lii yëpp. Mm-hmm. il faut de la transparence il faut que ñu xam nan la nit ñi di liggéeyee. waa kër Macky Sall ni ñuy liggéeyee mais aussi bu beneen nguur ñëwee fii nan la ñuy liggéeyee pour loolu il faut de la transparence dans les institutions institutions yi la ñu war a tegaat ci kaw taabal waxtaane ko pour que li ñuy distribuer li ñuy distribuer marché muy leer nañ mais ca kaw la commencé marché yi ci suuf la ne dafa am ñoo xam ne mi ngi ci kaw dañ ko war a régler ba pare ce pays a besoin d'être arrangé mhm. il faut ñu arranger ko mhm. te loolu il faut yi génn mhm. gis nii yëpp mais ils sont tous milliardaires ñëpp ku ci nekk ministre ba bëggay génn booy dugg ministre zéro franc ngay am mm-hmm. laaj wax naa leen fii ay yenn ministres yoo xam ne gis nga leen bi nekkee ci nguur Abdoulaye Wade ni ñi ngi toog ay 10 ans la toog liggéey ñu mais dañuy toog seen kër jàpp seen ñàmb di opposé wu di gérer seen i ak yi demee noonu avec beaucoup de moyens mais fan lañ ko jëlee c'est parce bi ñu nekkee ministre dañu mais ministère la santé bi ngay wax nii mais ay milliards Sénégal na ko jënd na jënd na jënd société boobu moom mooy defar nivaquine chloroquine bi ngeen chloro euh, lan la euh, bay peex mu naan chloroquine <laughs> ah. chloroquine mais yooyu yëpp mais yooyu yëpp ngeen di wax noonu gars yi ñoo ñoo koy defar ñun bu ko amoon di ko defal suñu bopp mais gënul mais loolu jar nañu lebi xaalis sax bu ñu ko amul woon ñu wut ay am na solution mm-hmm. comme ça ñun ñoo koy defal suñu bopp amaana sax xëy na nañ ko jaay mm-hmm. dama la ciy yokkal leneen vraiment mm-hmm. dama ciy yokkaat leneen ci Aliou Sow li mu li mu wax dama ciy yokkal leneen daf ci am leneen tamit loo xam ne tamit il faut que tamit ñu xam ko mooy euh, attention. Mm-hmm. loolu moo tax Afrique bu ñu la naan indépendance Afrique. Mm-hmm. amagul de parce que xam nga lu tax euh, occidentaux yi des fois ñoo lay fal. Mm-hmm. ñooy fal yow président yow ñoo lay fal léegi nag ñoom par exemple je donne un exemple tey jii man ma fal man nii man ma nekk France Aliou Sow nekk Sénégal man ma jàppale ko fal ko ba mu falu mais Aliou Sow. mais dama ko ne man sama entreprise yi toppatoo leen. toppatoo leen. loolu tam bokk na ci boo jëlee loolu ak transparence bi Aliou Sow di wax loolu moo am ci dëkk bi ba nga xam ne bu mu nekk nii euh, commission gi non gis nga euh, euh, non gis nga commission commission mu ngi fépp. mu ngi fépp. fii dañ lay wax ne eh, waaye yow xoolal defal ma lii. mais pas au détriment des intérêts des Sénégalais. waaw loolu laa lay wax non pas que ça soit commission c'est normal. mais warul nekk commission boobu. xam nga commission yoo xam ne ñëpp ko xam je donne un exemple par exemple ci football bi. Mhm. ci football bi xam nga commission bi agent bi di am. loolu moom ñëpp ko ay loolu FIFA da ko bind. mais mhm. tant ngay tant de pour cent ngay am. Mhm. club bi formateur lii ngay am. kii lii lay am loolu loolu foofu am na transparent moom. boobu lay wax boobu am na transparence mais yii nag kenn xamul yooyu maanaam binduñu ko fenn ci suuf mooy loolu la ñuy wax dessous de table dañuy ñëw ba si siyaage ne la eh xoolal fexeel ba ma jël kii bi marché bi bu ma ko jëlee ah, xoolal ah, ma bokkal la dara mm-hmm. mais comme ça loolu nag loolu loolu du tax maanaam yow sa économie sa entreprise yi maanaam du dox na ko teg lépp ci yoon moom mooy euh, teg kii na marché yi ku gagné. étude de marché waaye ku gagné nga xam ne kii moo ko mérité gagné na. Mm. loolu la mais que toujours kuy défendre loolu. waaw ku koy défendre. waaw kuy défendre loolu. mu de intérêt Sénégal. Mm-hmm. moom la lay wax pas intérêt bopp jox laa la ko Cheikh Diakhoumous parce que di ma defal retour. alors maamu moom la daf ñoo daf dañu lay bàyyi nga daal di euh, daane la. waaw Aliou Sow li dafa am solo bu baax a baax. nañ xam ne rek am na 168 fi nekk. Ah. ay entreprises fi nekk. entreprises européennes yi fi ñoom mm-hmm. dañ ne 2015 dañ ko gagné chiffre defee rek mm-hmm. mu ngi si huit mille milliards de francs CFA. mais jamono ji si force Covid 19 bi li ñu jot a génnee <coughs> baaleen ma ñu jot a génnee sax matul. bu jàppale Sénégal un milliard de francs CFA. waaw kon nag.